ajaban sëriñ Masamba kenn nii fàncanne xutbu ya ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin il mustafa wa ala alihi wa sahbihi sawil huda yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi al xalifatul am lil muridin maulana cheikh mahamadil muntaka di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala sàmm ko aar ko ba naa li mu naalal islaam ak yoonu murid mu eggale yëpp te ñaan ko ak moom di ziyaare bu baax it njabootu sëriñ Masamba Kandi Bousso gi nga xam ne ñooy waajal bis bu màgg boobu nga xam ne baaxoo nañ ko amal di ci fàttaliku seen maam ju baax jooju di sant bu baax it waa Samadiya ñi ànd ak ñoom ci liggéey yu am solo yi ngir tasaare njàngale mi ba mu gën a yaatu bu ñëpp man caa jot di sant sëñ Modou mi nga xam ne moom lañ doon jokkal ak mboole mbokk yëpp ñoom nag ñu sàkk woon ci ñun ñu jéem a def ab leeral boo xam ne dafay jëm ci xasida goo xam ne sëriñ ma Masamba kàndi Bousso moo ko bind muy xasida gu am solo gu mat a jàngat rawatina jamono jamono yu ne waaye rawatina jamono ji ñu toll moom nag doonoon kenn ci mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu di mbokkam mu ko jege lool ci wàll askan ci mbàkke ak ci buso gi mbokk man nañ ne sax doomi nijaayam la ci côté waaye doomi bàjjanam la ci côté doon koo xam ne dafa teel a jaayante ak sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu jël léppam jox ko sëriñ bi jaar fi mu war a jaar cim njàng ba géeju ci xam-xam ndax doy na sëkk rek mu jàngee ci sëñ bu mag bi radiyallahu taala anhu ak sëriñ Mbàkke Buso magam ak sëriñ ma Masamba Faati Buso di rakk ci sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Moor Gàllaay Jow mi nga xam ne kenn la woon ci mag ñu siiw ñu bari woon xam-xam foofee ca euh, njàmbur waye qasida gi buñ ko jangate dana wane dimension serigne Masamba Kandi so ci xam-xam qasida gi jublu way bi man nañu wax ne moy day ci jéggalu yalla borom bi subhanahu wa taala ak di ci ñaan ak di tawassul ci turu sahaba yi ak gaay yu bax yi ak et alquran ak turu yalla borom bi subhanahu wa taala kon loolu li muy wane rek mooy xam gi xam ne ñaan lu am solo la ci lislaam moo tax mu jël xasida gi jëme ko ci côté boobu ndax suñu boroom subhanahu wa la dafa wax ne uduuni astajib lakum na ngeen ma ñaan su ko defee ma wuyu leen euh, yonte bi alayhi salaatu salaam waxoon ne addu'a u silaaxul mumin ñaan mooy ngànnaayu jullit loolu moo tax nag mu jëfandikoo xasida gi ci anam googu ginnaaw bi tuddee turu yàlla borom bi subhanahu wa taala wane na yàlla mooy kilifaam da ko tàmbalee ci bayit bi ci jiitu yallaahu yaathal xalqi yaa mu'ni karim waahibu yaa razaqu yaa xayra xakim mu yow suñu borom subhanahu wa taala yow mi nga xam ne yaay borom mbindeef yépp yaa doon ki nga xam ne yaay woomal ku am ku ne jox la mu yow mi nga xam ne yaay aji tedd yow mi nga xam ne yaay ab mayewaa kon bi nga xam ne say xéewal day dotti yow yàlla mi nga xam ne yaay aji xéewale yow mi nga xam ne yaay ngën ji aji xarañ nga gis rek bayit bu njëkk bi daanaka mën nga cee génnee daajiin wi nga xam ne ci la daajee xasida gi muy baxru rajaz mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun nga gis kon ci turu yàlla la tàmbale tudd na allahu muy tur ci tur suñ borom tudd na tamit almughni yàlla muy aji woomale muy tur ci tur suñ borom tudd na tamit alkarim yàlla mi aji tedd tudd na alwahab yàlla muy ab maye waakon tudd na razaq yàlla muy xeewele kon tudd na tamit xakim yàlla mi aji xarañ nga gis kon boo xoolee ci bayit bu njëkk bi lim ci dajale ci turi suñ borom nga ëpp na juróomi tur mu daal di teg nag salli bi xaqi jumlatil asmai laka wa ma fil ardi wassamaayi yàlla na nga julli ak a sëlmal ci àq tur yi nga xam ne yow suñu borom am nga ko euh, muy asmaullahi alxusna yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na fukki tur la ak juróom-ñeent euh, ba ko mottali nag doon téeméer bi boobu moom daa mel ne borom xam-xam yi dañuy wax ne rek lu yàlla lëm la maanaam lu yàlla la Euh, ci biir tur yooyu moo tax mu wax ne julil ak a ci àq mboolem tur yi nga xam ne am nga ko te tur yooyu di la aji ñeel ak li nga xam ne am nga ko te mu nekk ci kaw asamaan ak suuf ci kan ngay julli mu ne ala nabiyika rasulil alami muhammadin Khairil wara wasallimi ci yonente bi nga xam ne yaa ko yónni te turam di muhammad صلى الله عليه وسلم يا خم نموي غنج من ديف كن جلل أك سلمان تيون تبي صلى الله عليه وسلم جسنا بيم جلل تيون تبي عليه الصلاة والسلام يوم جا دفع جل بقي أي صحابة أقوى كرب من سما على الآل معا وصحبي وجملة الأحباب خير ربي نينا كو جلل أك سلمان تيم بولم وأكرم أك نيونم أك صحابة ميغا خم نموي ñu àndoon ak moom dar ko doon ko xeexle doon ko jàppale ci lislaam ak mbooleem soppeem yi moom yonent bi alayhi salaatu salaam yow mi nga xam ne yaay ngën ji yàlla yow mi nga ngën ji boroom kon mu tuddee turu yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam nag dafa daal di ñëw nag ci ki nga xam ne mooy sangam ba muy si Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu kon da ngay gis ne ci yàlla la tàmbulee wàcc ñëw ci yonente bi ak saxaabaam doog a wàcc ñëw ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu kon loolu di wane xam gi xam xam dayob suñ boroom waaye xam gi ñu xamit dayob yonente salaam ba seen lépp da ciy feeñ nga xam ne duñ jaawale daraja ji maqaama bi ñu war a jox suñ boroom ak maqaama bi ñu war a jox yonente bi ak maqaama bi ñu war a jox sëriñ bi moo tax mu ne wali yahab bi xurmatil xadiimi sirran yajuudu lii bi taqdiimi yow suñ boroom maa ngi lay ñaan ci daraja yi sëriñ bu mag ba nga xam ne aw turam mooy alxadim maanaam liggéeykatu yonti ma alayhi salaatu wasalaam kon ne am ne sëñ Tuubaa moom la ñuy wooyee xaadimul rasul di ko wooyee tamit xaadimul rasul donte ne ñaari baat yi wuute na ndax buñ ne xaadim moom mooy koo xam ne day liggéey di wàcc rek ba ci mindaan mi ci kër gi sax kooku xaadim lees koy jàppee bu dee xaadim nag mooy koo xam ne day sax dàkk ci liggéey bi xam ne siira mu baalaxa la xam day sax dàkk ci liggéey bi Euh, comme ni ko sëñ bi waxee rek ba ba mu tàmbalee liggéeyal yonent ali alayhi salam salaam tàmbalee ko ca asas muy 1301 ba ni mu làqoo mësta bàyyi mësta teq tekki laxasaayam kon loolu doon lu am solo kon mu ne ko maa ngi lay ñaan ci darajay sëñ Tuubaa moom nga xam ne bokk na ci ay turam liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam secret boo xam ne ci nga may mayee ak jiitu maanaam ci nga may mayee ma doon koo xam ne damay jitu samay morom yi nga xamne ne maa ngi ñoom ñoo di wut yalla borom bi subhanahu wa taala ci serigne bu mag sirra nag la wax da ko def nakira kon day melne lu yaatu lay doon secret ba lu ne lu ne man na caane lo yaakar rek ci lu bax lu nit diam man na dugg ci bir secret bobu muy muy muy ñaan waaye non la ko topo uh, waxa wax ci bare ba daldi di ci fi muy wax wahab lana barakatal kiraami assaabiqiina xayral anaami yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may barkeb gaañu baax ña gis nga alkiraam eh, ñi nga xam ne ñoo jiitu woon eh, doon lu am solo di wane yitte ju kawe ji nga ne la Masamba Kandi bu so amee won ndax monon na wax rek wahab lana barakatan yàlla nag ma may barke waye ban barke la ñaan moy barakatal kirami yi barkeb gaañu tedd ñu ñi jitu won euh yow mi nga xamne yaay ngeen ji mindeef di yonti bi alayhi salatu wasalaam waye non lay ñewate ba ci tayit ci bir muy wax wahab lana bi jahihil karimi jalbal masarrati maa takrimi yow suñ borom ma ngi lay ñaan yalla nak ma may ci daraje yonti bi alayhi salatu mi aji tedd jalbal masarra ma don ko xamne danga may may loom am day ñoddi mbégte ba faaw di ma dàqal lépp loo xamante ni mooy lor ma takrimi ak teral ma nag teraanga joo xam ne dafay fees ba faaw kon euh, ci njëlbeen googu rek boo xoolee dangay gis euh, ñaan yim ci yiñ ciy ñaan ci ay daraja ak ay maqaama waaye ba tey it ci biir foofu yaa ngi gis muy wax naan wali yahab makaarimal axlaaqi mustaamilan biha ma al arzaqi yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may tedd ngay jikko maanaam jikko yu rafet yi ya nga xam ne mooy ya gën a tedd maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may ma doon koo xam ne dama koy takkaayoo maanaam day day nekk ci man ndax ca la yem mu ne mu saamilan biha di ko jëfe nag maanaam boobu mayee jikko yu rafet yëpp benn bu ci nekk nag bu nekkee ci man dama koy jëfee bañ xam ne ab muñkat laa bañ xam ne ku tabe laa bañ xam ne ku laabiir laa ilaaxiri yi ba mboolem jikko yëpp jeex waaye nag nag ma ci boole ay wërsëg yu yaatu mel na ne wërsëg gis nga ñaan na ko ci biir xasida gi ay yooni yooni yoon ndax it dafa bokk ci nga xam ne euh, ñoom mag ñi dañ ko daan ñaan ngir man koo am di ci liggéeyal sëriñ bi ci procès yu mag yi nga xam ne moom la ame woon te lépp di procès l'islam waaye ba tey it euh, noonu lay ñaanee euh, li nga xam ne mooy rida muy ngërëmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala wali xayra ridaaka kulla xiin summa jaalan nii min xiyaari saalihin yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may ngën ji ngërëm maanaam sa ngën ji ngërëm jamono yépp nag mënoon naa ñaan suñ borom ngërëm rek yàlla may ko ngërëm waaye gis nga xayra gi ngën ji ngërëm kan kon ngërëm la muy ñaan mooy ngërëm la gën ci ngërëm yi nga xam ne suñ borom bu la xasee ba gërëm rek dootu la xarab ba faaw waaye maa ngi lay ñaan it nga def ma mu bokk ci mbooleem tànnee fi nit ñu baax ñu sell ñu yiw ña kon aw ñaan it daal boo xoolee da ngay gis ne nuroo na ak sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu ni muy ñaanee maanaam mag ñi sëñ bi dafa jeexintal ci ñoom ba seeni mbind daanaka boo koy xool danga nga ciy yëg euh, waxiinu sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu waaye noonu la ko toppa ba tey it wax ne yallaahu yaa rahmaanu xayra munzili salli bi taslimin bi xaqil munzali yow suñ borom yow mi nga xam ne yaay aji yërëme ci àdduna yow mi nga xam ne yaay ngën ji wàccee ab téere bii di alquranul karim jullil ak sëlmal ci darajay ka nga xam ne moom lañ wàccee ci moom alquranul karim mu yonti bi alayhi salaatu wasalaam mu daal li cay teg ne ala nabii saaxibil furqaani wal ali wa sahbi sawil iqaani yonti boobu nga xam ne mooy borom alquranul karim ndax ku ne xam ne ne alquran mooy téere bi yàlla wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, am na ay téere yu jiitu woon tawraat injil zabour waaye alquranul karim moom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la suñ borom wàccee inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka ak inna anzalnaahu fi laylatil qadr téere boobu la ci jubloo junj moom suñu borom muy guddi gu barkeel googu di guddig laylatul qadr ci la ko suñu borom euh, wàccee mu ne kon euh, jullil ak a sëlmal ci mboolem ay saxaabaam ndax ca la yam mu ne maa xadimihi allazi qad judna lahu bi ma ala nabi anzalna waaye maa ngi lay ñaanit loola nalaw ba ci liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy alxadim kane baatub xadim andiwaat na ko ba tey euh, moom mi nga xam ne dag ñu koo may dag ñu koo tabeel dag ñu koo dag ñu koo wàcceel jox ñu ko muy ak xéewal gu mag a mag waaye noonu lay ñaanaatee ci biir ba tey it muy wax naan waliyahab bi xaqi wajhi al karim wa xaqi xayril xalqi wa sayxil xadim barakatal kitaabi wal asraari wal xifsi wa tafhimi wal anwaari wala barakatal kitaabi wal asraara wal xifsi wa tafhimi wal anwaara yow suñ borom euh, maa ngi lay ñaan ci àq yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci sa àq yow mi aji tedd ak ci daraja yi sëriñ bu mag radiyallahu taala anhu yàlla nag ma may barkeb alquranul karim ak ay mboot ak mokkal ak dégg ak ay leer wasrax bihi sadri wa yassir amri lii bihi wa fiihi barik umri yow suñ borom maa ngi lay ñaan ci daraja yi yonti bi alayhi salaatu salaam yàlla na nga yaatal sama dënn te na nga yombal samay mbir waaye maa ngi lay ñaanit it na nga barkeel sama dund dund gu barkeel ku ne xam ne ne ñoom mag ñi suñ borom jox na leen ko léeg nga gis ñoom te ni boo xoolee seeni at mel na du bari lool waaye barkeel na ba mel nañ ne ñu fi am ay junni junni at loolu nag jublu giñ jublu woon suñu boroom ak am giñ am ngërëmal yàlla moo leen may loolu ñoom mag ñooñu waaye yemu ca mu daal di wax ne wa tahiran qalbi wa safi kulli bihi wa fiika wasi fadli yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga laabal sama xol waaye na nga seetal sama lépp ci daraja yi sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu waaye na nga yaatal samay ngëneel nga gis kon fofot andi na fi tomb bu am solo muy xol ku ne xam ne ne xol mooy li gën ci doomu aadama su baaxee lépp baax su bonee lépp bon comme ni ko yonti bi alayhi salaatu salaam waxee sëriñ bi ne woon alqalbu kal maliki fil yi xol mi ngi mel ne buur euh, ci biir ay dagam fu ne jëm leen fa rek fa la ñuy jëm bu ne leen toog leen ñu toog bu ne lee taxaw leen ñu taxaw bu ne leen jug leen dem ñu jug dem xolit noonu la mel moo tax suñ borom waxoon ne yawma laa yanfau maalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim bis booba xol bu set bu mucc ayib ci mboolem sikki yi nga xam ne mooy tee àgg ci yàlla sikki yi gàllankoor doomu aadama bu ci setee rek mooy doon xol bi koy jariñ ëllëg yawmal xiyaam waaye yitte ju kawe ji da ciy feeñ ba tey ci biir xasida yi wa faddilan ala siwa dhatil khadim kulli bihi min khalqi asri ya karim foofot gis nga lim fi ñaan maanaam na nga gënele ci sama jëmm keneen ku man nang ko def ma gën ko ba mu des nag jëmmi sëriñ Tuubaa radiyallahu taala ci mboolem ñi ma yow mi aji tent kon day day wane na bu mag bi nit mënta baax ba gën ko waaye keneen bi sëñ sàmba day ñaan yàlla def ko mu gën ko mu gën koo kawe mu gën koo kawe kon loola doon lu am solo ak wane tamit ak bëggam sëriñ bi ak xam wàccuwaay bi nga xam ne euh, sëriñ bi am na ko ba tax buñ dee ñaan it léeg ci biir seeni ñaan it ñu ciy bàyyiwaale xel loolu mu daal wax ne habli bihi nuura ahadisi rasul wal barakaati xayra man yati bisul yow suñ boroom maa ngi lay ñaan ci daraja yi sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu nga may ma leeri xadis yi nga xam ne moo bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ay waxam nga ne ñaanu rek mu jox ko xadis waaye la gën la ca gën wala leer leer ya leer ya ca boppam leer ya mi àndal moom moom lay ñaan suñu borom subhaanahu wa taala jox ko ko waaye jox ko tamit ay barke yu bëree bëree bari yow mi nga xam ne yaay joxe xewal yaay maye xéewal habli bihi tawxida wal fiq maa xayra tasu tasawufin walil yum naj maa yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may lii di tawxiid xam-xamu tawxiid ba ma mën a xam fi may teg sama borom ak yonente yi ak keneen ku dul ñoom waaye maa ngi lay ñaan it yàlla nag ma may eh, xam-xamu fiq ba ma xam ni may jaamoo yàlla lu jëm ci julleeg azaka koor ak yu ni mel waaye maa ngi lay maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may xam-xam di xam-xamu tasawuf bi nga xam ne ci laay mën a sellale waaye tamit nag ma ci booleel lii di barke kon gis nga euh, xeeti xam-xam yooyu ku ko yàlla jox maneef naa wax ne li ëpp solo ci xam-xam yi diine yi daje na ci yow muy fiq tawxiid tasawuf ak xadis xadis yonti bi alayhi salaatu wasalaam nga gis kon day mel ne xam-xam yi ëpp solo ci xam-xam yi lislaam yi ci xam-xam yi sharia yi la ñaan suñu borom subhanahu wa taala jox ko sering serigne Masamba te ku suaram istuwaaram da nga xamne xam-xam yoyu yalla defalon nako ci fat ubilon nako ci waye batayit mu jëm mu war rek ci boromam habli bihi tawakkulan alayka maal xadiimi qaada ilayka yow suñu borom ma ngi lay ñaan nang ma may ci barkeb yonnati bi alayhi salatu wasalaam ma don ko am damay jël sama mbir yépp wër ko ci yow manam wëru ci yalla ku ne xamne ne ku wéer ay mbiram ci keneen ku dul yàlla kooka bis dana ñëw mu jóge fi wa tawakkal al hayy alladhi la yamut yàlla nee na na ngay wéer say mbir ci yàlla mi nga xam ne day dund te du faatu moo tax mu ñaan loolu waaye tamit wéer ay mbiram ginnaaw bu yàlla jàllee ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom moo ko wammat jëmee ko ci suñ borom ba tax mu xam yàlla waaye noonu lay ñaanaatee ba tey ci jaamu yàlla yi muy jaamu yàlla yàlla dëgëral ko ci habli ala taaati sabran yaa sabuur summa anil maasi sabran yaa xafur yow suñ borom maa ngi lay ñaan mboolem jaamu yàlla yi nag ma may ma doon koo xam ne damay mën a muñ nag ma ca may ak muñ yow yàlla ma yaay mboolem jaamu yàlla yëpp ma mën a muñ ba man koo joxe ku ne am na jaamu yàlla ngir nit ki sottal ko laaj na muñ koor xiif ak mar metti na laaj na muñ aj màkk ak coono ya laaj na muñ julli ak waajtaay yam yi àndal ak yu ni mel laaj na laaj na muñ surtout ci jamonoy sedd beek ngay jàppook wala ngay sangu farata ngir war a dem julli jéeg yooyu yëpp muñ moo koy def moo tax kon mu ñaan yàlla may ko ak muñ ba mën a taxaw ci mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ko mbooleem topp yi muy mbooleem jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ko suñu borom togg waaye mu may ko tamit mu mën a muñ ba bàyyi lu naqari yàlla ba du moy suñu borom subhaanahu wa taala moom yàlla mi aji euh, jéggale foofa don lam am solo ndax mo yàllaat dafa neex ci bakkan bakkan do maram li tax nit ki man ca muccu moy day don ko xamne ne daf koy mën muñ kon yoyuy don lu am solo lu mata a xel waye nak muy ñaanit mel sahaba ya nak gaay yu bax ya wajaal ni lil khadim ka sayyidis sadiq lil makhdum ma ngi lay ñaan nang ma def ma mel sayyiduna abubakar bakar ma nga xamne ne ku deggu won ko na meloon ci yonti bi alayhi salaatu salaam nga may ma ma mel noonu ci sëriñ Tuubaa radiyallahu taala kon daal def ma may Abu Bakar ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu wala sayyiduna Abu ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu walil xadiimi ahmada jaalanni abat ka sayyidil faruq lil mu'ti rashad maa ngi lay ñaanit ci sëñ bu mag bi nga def ma ma mel ci moom comme ni nga xamee ne noonu la alfaaruq di sayyidna Omar meloon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam summa jaalan nii lil xadimi ahmada fadlan kadin nuurayni lil motil nada maa ngi lay ñaanit nga def ma ma mel ci sëñ Tuubaa radiyallahu taala anu comme ni nga xam ne noonu la saydna Usmaan meloon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wakaa shirafi lil mbakki yi ijaalan ijaalan niyat daarayni lil mbakki yi nang ma mayit ma mel ne Euh, seyd naa Aliyu comme ni nga xamee noonu la meloon ci yonente bi alayhi salaatu salaam ma mel noonu ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu foofa doon lu am solo lu mat a bàyyi xel ndax boo xoolee saxaaba yooyu mu tudd mooy alxulafaawul arbaa mooy ñeenti ñu wuutu yonente bi alayhi salaatu salaam waaye kenn ku ci nekk bu la tuddee saw dàkkantal la la lay la lay wooyee gis nga siddiq mooy Seydina Abu Bakar ku dëggu woon kon nga xam na histoire ba waraloon ñu tuddee ko muy Seydina Omar nga ne moo teqale woon dëgg ak ay neen comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee woon Zinnurayni boroom ñaari leer yi muy Seydina Ousmane ngir denc gi mu dencoon ñaari doom ci doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Abu Shiraaf moom it mu jublu ci Seydina Ali mi nga xam ne mooy bàyyu ñu tedd ña di Xasan ak Xuseynu ak ñañ bokkal mu daal di ñëw nag ci mujjantal gi daan ne بحق وجهها الكريم يا كريم وحق ذاتك العظيم يا عظيم وحق ما في الأرض والسماء آه، خلقته بمالك اللواء وحق ما في العرس والكرسي معهما خلقت بالعلي loolu lépp nag maa كوي koy ñaan سجم يو jëmm yow suñ borom mi اك tedd ak ak lépp loo xamante ni am سوسي ak lépp loo xamante ni yaa ko bind te mu ne ci aras ak kursi yi maanaam lépp loo bind rek te mu doon bindeef mu ne ci kaw ak ci suuf mu làqu ak mu jage ak mu sori maa ngi lay ñaan nga defal ma lii ci sa àq jooju sa daraja jooju yow suñu borom subhanahu wa taala kon xasida la goo xam ne euh, xeeti ñaaniin yi ci ne li muy wane ci ku koy jàngat mooy ki ko doon bind xam na kan mooy boroomam waaye xam na kan mooy yonente bi nga xam ne moom la suñ borom yónni waaye xam na kan mooy as cheikhul xadim radiallahu taala anhu ndax da cee bu baax a baax waaye da ngay gisit ni nga xamee ne noonu la doonee koo xam ne ku am yitte ju kawe da cee feeñ ba buy ñaan la lay ñaan maanaam du ñaan du ñaan du ñaan dara noonu rek waaye day ñaan yàlla may ko la gën looloon nag da koy royee sëriñ bu mag radiallahu taala anhu ndax moom it gis nga sax ba muy ñaan Euh, xayral mi la waxoon fil maqaasimi maanaam cër bëggante cër ya la doon ñaan suñu borom moo tax it kon mu roy ko ci bu baax a baax waaye da ciy feeñit ba tey it xam ngeen xam ne sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu ni mel moom kéemtaanu suñu borom la euh, gën ko doonul loo xamante ni lu yomb la moo tax bi muy ñaani suñu borom def ko mu gën moom daa ñaan mu gën ñeneen ñeneen ñu dul sëñ bi wala keneen ku dul sëriñ bi sëñ bi moom mënee mëneefu ko gëm waaye turi yàlla yim ci andi ak turi yonent bi ak saxaaba yet day wane daal ne koo xam ne euh, ku amub cër la ci suñu borom subhanahu wa taala kon ñuy ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala gën ñu koo fayal ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam liggéeyal na ko yoonu murit te mag ñi jàpp naa ne di jël seeni mbind di ko càmbar di ko waxtaan dana doon lu am solo ndax ñu bëree bari léeg-léeg jàpp nañ ne rek mag ñi àndoon ak sëriñ bi moom ñu ci bari seen xam-xam taxutoot mu dem noonu seenu taalibe nag daa làqoon seen xam-xam ndax sëñ Massamba jàpp naa ne liñ bind li ci mbokk yi jot a gis ci ñi nga xam ne dañoo gëstu ci moom ay fukki xasida lay war a tollal wala du ko sori lool kon day mel ne lim bind bëriwul lool waaye li ci li ci rot te ñu jot koo gis boo ci jàngat rek càmbar ko danga nga yëg ne daal mom la warona nek nekk mom ci xam-xam lepp nekk na ci mom jang, na la wara jang jaar na fam wara jaar bam def bopam taalibeb Serigne Touba di liggéeyal bëgg ko lol am ci mom ba lu ko serigne bi digal lola ci lay nekk lu ko serigne bi téré mom du ci tek tankam ba non la fi nekké ba nim fi juggé 1936 ñu ñaan suñu borom gëna yok ay léram euh ta bayyi fi ay mbokk ay xalifaam yi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji ñu toll te gën a dëgëral ak njabootam wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci xam-xam di leen sant bu baax di sant waa As-Samadiyya wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ajaban sëriñ Masamba kenn nii fàncanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu